bi pourtant for pour wax naa la ko de. kala mag jeex jaam jeex jaam man booy boobu. jeex jaam ko ma tàngoon ko ma. booy dafa galaa de. waaye jeex. def jaaw. non waaye dëppul ma lekk nepp jàmm waaye jeex. jeex yow heure bii war na la fekk fii ngay nekk fii di nuyu. liggéey nañ dem nañ dem kër ñun ñun ñu doo dem dëya mu buddi la buddi ñu galaa foofu nga jàpp jeex jaam nga xam ne yaa gën a jeex jaam. naa la de. jeex jaam jeexul jaam sax. booy ñoo gën a jeex jaam booy. dara du yëmoon mooy def suñu yaram. yàlla bu ñu teg gàcce booy. booy suñu fayam booy mosuñu am ay affaire yooyu noonu. fekkee mënoo bëree combat bi nga jox jërë ngeen jëf mbokk internautes yi gannaaw bañ leen ñëw di leen ziar tey nekk lundi 14 août 2023 ñu di leen seen revue des titres ñu njëkkee ko ci suñu làmb tey nag euh, ñu ngi ñu indil Modou Lo Ama Tapha ëmm en novembre lamb ji dina sàjj lamb ji war naa ndax euh, le VIP ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a tijji saison bi moom mooy Ama Baldé ak ki nga xam ni moom mooy Modou Lo loolu le 5 novembre lay am ki nga xamante ne moom ak ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène loolu war a am le 12 novembre par Albourakh Events mu nekk combat yoo xamante ni nag wax dëgg yàlla ñoom VIP yi ñu ngi leen di xaar li nga xamante ne moom mooy seen ouverture Lac de Guiers numéro 2 tamit dina kon novembre euh, mois des VIP waaye bu jugee foofu ba tey gis nañ ki nga xamante ni moom mooy Garga 2 gars yi dañ ne quel adversaire pour Garga 2 Garga 2 Tyson 2 Moussa doomu daang wala Ahmed Dem ñooñu daal lañ lañ tegal ki nga xamante ne moom mooy Garga 2 ak lu mënti xew daal Garga 2 instant bi ba tey mi moom mooy victoire am bu ma jógee foofu gis naa ki nga xamante ni mooy Kalmundur gannaaw bu Fils de Balla defee tamit li nga xamante ni moom mooy réaction am ci ki nga xamante ni moom mooy leader di Balla Gaye 2 Kalmundur daf def na sorti ci ki moom mooy Boy Niang di na nag li nga xamante ni moom mooy relation am ak Boy Niang lan préparation combat ak euh, Balla Gaye mu nekk si tribune bi loolu yëpp dañ ko indi si jàngat bi bu ma jógee foofu muy suba incha allah mu nekk loo xamante ne le 15 août si diggante Tigre loolu mi ngay am suba mu nekk li nga xamante ne moom mooy Pape Thialis Faye moom moo tëgg loolu gannaaw nag ba ki nga xamante ne moom mooy combat doomu daangu ak fils de Balla la ca foofu gis nañ ki nga xamante ni moom mooy bébé Diène bébé Diène mu nekk xale boo xamante nee naa leen ay torof moo nekkoon ci kanam may gannaaw ba mu ci génnee gis nañ ci dynamique de victoire bi mu toog ndax gannaaw ba mu bëree xam moom mooy gàkku de bëri naa ki nga moom mooy Bambi Ndione euh, gëm sa bopp mu nekk xale boo xamante ni wax dëgg yàlla mi ngi wane li nga xamante ne moom mooy boppam dañ ci gën a yaatal buñ jógee foofu gis nañ ci nga xamante ni moom mooy euh, Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane Niang nag ñëpp mu nekk dóor dóoraat ñu gis ni ki nga xamante ni moom mooy euh, papaam dafa génn àdduna Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye nekk doom ci Robert ak Mamadou Ndiaye gis ni ki nga xamante ni tam moom seen way euh, waajur bu jigéen dafa génn àdduna en tout cas daal fee ca Joal nag ñoom nag ñi ngi en deuil Ardo gannaaw ba mu bëree combat ak afi ak Ibu Afia Ibu Afia daan ko Ardo nag dugal na recours ndax nee ki nga xamante ni moom mooy Ibu Afia dafa def quatre appui ak lu mënti xew daal day xaar nga xamante ni moom mooy décision CNG gis nañ Kanté production borom ETDR Evans gis nañ nag muy defar li nga xam te xale yi ca soow mi ak ki nga xamante ni moom borom suuf si muy jeex jàmm jàmm booy Diop loolu nañu war a la le 20 août incha allah fee ci arène nationale mu nekk journée Ndiaye production ba mu jógee foofu tamit damay dugg fi nga xamante ni euh, nee naa leen euh, euh, dimanche muy bërki démb Zal Bambay Zal Bambay nag wane na boppam ci diggante Naar Fall Naar Fall mu nekk xale bu Tëngéej ba en deux minutes en trois minutes vingt secondes ca la ko daanee Zal Bambay nag gis nañ ki nga xamante ni moom mooy Tafatine Tafatine assisté na ko ndax li mu wax rek nee na xale yi dañuy sonn ci man looloo tax képp ko xew la dinaa ñëw fi may jeexalee mooy gis nañ li nga xamante ni tey mojja tey la gars yi indi mojja nag na mu daanee daam seen moom na suñu làmb indi euh, loolu la indi indiloon ci li nga xamante ne moom mooy ci revue des titres bi xanaa dañuy ñëw léegi ci li nga xamante ne moom mooy ci jàngat bi ñu gën koo yaatal jërë ngeen jëf mbokkeen tox na ñuy suivre à travers Kewel Info gannaaw bu ñu leen indilee seen revue des titres ñu indi leen li nga xamante ni moom mooy jàngat bi fi mu koy njëkkee mooy i nga xamante ni làmb ji dina sàjj làmb ji nag dina sàjj ñi ko war a sàjjal mooy ñi nga xamante ni ñoo war a bëre mois de novembre ku ci mel ni ki nga xamante ni moom mooy Modou ak Ama Baldé loolu la 5 novembre la ki nga xamante ni moom mooy Tapha ak Eumeu Sène nekk le 12 novembre mu nekk combat yoo xamante ni nag ñëpp ñu ngi leen ciy xaar ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers numéro ak sita tamit <coughs> di ci bëre mu nekk combat yoo xamante ni macha allah moo tax ñu ne làmb ji dina sàjj bu làmb ji sàjjee nag ñun ñoo ko war a sàjjal ndax ay mbër la ñoo xamante ni kenn ku nekk ñu ngi lay xaar ci li nga xamante ni moom moo ci fulla si jom. ak kenn ku nekk nag fa nga war a défendre buñ jugee ci loolu Garga 2 gannaaw bu mu bëree combat ak ambulance mu nekk combat boo xam te ne ñëpp dañ ko ci doon xaar Garga daan ko ba mu ko daanee pare nag <coughs> ñëpp dañ ne. Garga 2 ñun ñooy ay adversaire am ndax Garga 2 nag il est mu bëre yéeg ci kaw ñi ñi naan Tyson 2 ñu ne Moussa Ndoye ñu ne doomu daangu ñi ne Ahmed Deme mais moom en personne dégg nañ ko mu ne moom pare na pour bëre ki nga xamante ni mooy Moussa Ndoye kon donc Garga 2 Moussa Ndoye loolu combat boo xamante ni combat bu neex la gannaaw bu ñu ci loolu tamit ki nga xamante ni <coughs> bokk internet dama soj ki nga xam xamante ni moom mooy Kalma Ndour gannaaw bu Fils de la génnee nag wax ci ki nga xamante ni moom mooy mantooram di Balla Gaye de Kalma tamit wax na digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy booy ñaa dégg nañ ko nag mu ne Boy Niang Kalma euh, Ndour mu ne moom kenn dàqu ko écurie ba <coughs> kenn écarté wu ko lan moo tax nag mu mere Boy Niang muy day am combat bëri na neuf combat gisul Boy Niang déggul booy ñaa euh, booy ñaa du ko accompagner ci dara ndax nag nee na ni ko wax sooy ànd ak moom sooy bu guddi guddigal bu lay guddi woon da nga koy bëccëgal kalmuru daal expliqué ne looloo tax daal mu réservé boppam ak lu mënti xew daal ñoom ñoom ñëpp ñoo far ndax ñooy ànd di dem ay junj di kon donc nañu waxtaanaat seen biir juboo nekk benn ndax làmb moom ñoom kenn ku nekk mënul dem sans sa morom en tout cas Kalmundur daal ak Boy Niang kon li ma waxoon ci fii de Balla rek ay xarit lañ te ñoom seen diggante daal moom. bu ci kenn dugg euh, bu ma jógee ci loolu tamit gis nañ ki nga xamante ni moom mooy Boy jóg borom soow mi war a jàmmarloo ak ki nga xamante ni moom mooy jeex jàmm mu nekk combat boo xamante nag combat espoir la combat boo xamante ni Ndiaye production moom moo tëgg loolu mu nekk combat boo xamante ni combat capoeira la ndax nee naa leen dimanche incha allah ku ñëw ci arène nationale ndax nee naa leen combat boobu jaay na boppam muy groupe whatsapp yi muy marché yi muy lépp kon donc dañuy xaar le jour ji tey nekk ki nga xamante ni li nga xamante ni moom mooy ëppanu presse su jeex jàmm di wax rek dafa gaay yi ñëw fee ci Grand Dakar ba tey euh, dañuy moom mooy Bébé Diène ndax gis nañ ne Bébé gannaaw na bu mu bëree combat ak Gàkku Dëgg combat am ak Baye Mandione dafa taxaw mu nekk combat boo xam te ni ñëpp dañ ci doon xaar Bébé Diène Bébé Diène Baye Mandione dafa daan Père Kairé deux fois ñu gis ni Bébé Diène jël na Baye Mandione wax ji bari ñu ne Bébé Diène mag la jël Bébé Diène xam nga dafa war a jël booyi yi Baye Mandione nag wàcc bëre ki xam te ne moom mooy Bébé Diène mu dégg ci lu ne wax dëgg yàlla combat bi nag gis nañu Bébé Diène kon li mu wax rek mooy xale mooy wan boppam mooy wane boppam mais Bébé Diène wane na boppam bëre na won na ni carrément que ni man xale laa parce que foofu lañ ko doon xaare ñu ngi naan nag Bébé dafa humilier ki nga xamante ne moom mooy Baye Mandione mais daal ak lu mënti xew bëre na daan na mais combat boobu dafa am koo xamante ni dafa ma woowoon dimanche ne ma Bébé mooy daan ne ma dina ko wër ndomba ah, bu ko wëree ndomba. Euh, nu mu tudd penalti dina ci am penalti nag ñëpp xam nañ mooy wër ndomba bi wax ma ni mu koy daanee ba ma waxee damaa tiit te yàlla def na ni combat bi eh, noonu la demee en tout kooku xam na boppam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax borom parcelle ak lu mënti xew daal Bébé Diène egg na Bébé Diène nag ñu bari ñu ngi wax ay combat mais ak lu mënti xew kon li ma wax rek Bébé Diène daan na Baye Mandione mais ba tey day bu rek ñu nga xam te ne ñoom ñooy ay moromam Baye Mandione amuñu dara luñ koy wax bëree na jël na xale. bëre ak moom ndax nee naa Baye Mandione amul problème adversaire amul problème kii laay bëree wala kaa laay bëree Baye Mandione nee na moom làmb moom luñ ko fay mu nekk loo xam te ne la rek day bëre wax dëgg yàlla mu nekk borom xol bu rafet koo xam ni suñu nit moom it ko ñaanal yàlla defet yàlla na fa yem di ko wax wax dëgg yàlla chapeau ndax bu ko neexoon mu ne du bëre ak Bébé Diène Bébé Diène daal li ma wax rek jëlaat na li nga xam te ne moom mooy place am kon donc Medina nañ ko bàyyi xel di félicité waat ki nga xam te ne moom mooy Père Kayré ndax dafa jàppale booy yi gunge na booy yi wax dëgg yàlla soutenir na booy yi di ci félicité nag Diène rek mi nga xamante ni moom la tuddee boppam. Euh, Zal Bambey gannaaw ba mu bëri combat ak Naar comme combat ak Boy Naar Fall mu nekk combat boo xamante ne dañ ko doon xaar ñëpp joxoon nag Boy Naar Fall favori moom mu daan ko ñu gis nag ki nga xamante ne mooy Moustapha Tine ñëw assister ko épaulé ko ndax nee na booy lañu am te booy yi ñun suñuy bëri dañuy sonn si ñun kon donc. booy ku ci bëre rek war nañ koo mën a soutenir en tout cas daal mbokki internet bi loolu lañ leen indiloon bala ñuy tàggoo tàggoo bu dul tàqalikoo tey moo jax lañ leen indil gannaaw ba mu daanee fi nga xamante ni moom mooy daam seen jëli boobu noonu tey nag gars yi nag chuti lañuy indi ba muy songee ak ba muy daanee waa suñu làmb kenn du ñoom en tout cas mbokki internet yi loolu lañ leen indiloon ci li nga xamante ni moom mooy seen revue revue de presse euh, liiru jaan nag di ko ñaana yàlla bébé bi xamaguñu instant bi tur bi nag loolu mooy problème bi mais daal ak lu mënta xam tur ak juróom la koy tuddee en lu mën a xew Lirou Diane ñu ngi koy félicité waat encore une fois ndax a ñëwal parce que Lirou Diane monument la te day daal jàmm jàmm ko gën bàyyi jili tarkindaa bàyyi jili kolobaan sañse maa ngi leen nuyu bu baax a baax ensemble bi moom moo fi génn di ko ñaana yàlla yàlla yokk xéwalam yokk kàttanam yokk mën mën am yow loolu sañse woo rek baaxul di jox gaay dig daje prochainement ba suba incha allah si jàngatu làmb combat bi pour man wax naa la ko de. kala mag jeex jaam jeex jaam man booy boobu. jeex jaam boobu dëgg ko ma tàngoon ko ma. booy dafa galaa de. waaye jeex. def jaaw. non waaye dëpp lu ma neexul ñëpp jàmm waaye jeex. jeex yow heure bii war na la fekk fii ngay nekk fii di lido. liggéey nañ dem dinañ dem gën ñu ñun ñu doo dem dëya mu buddi la buddi ñu galaa foofa nga jàpp jeex jaam nga xam ne yaa gën a jeex jaam. wóolu naa la de. jeex jaam jeexul jaam sax. booy ñoo gën a jeex jaam booy. dërëtu yëmoon mooy daw suñu yaram. yàlla. bu ñu teg gàcce booy. booy suñu famille booy mosuñu am ay affaire yooyu noonu. jox ñu dem liggéey fekkee mënoo bëree combat a tamit nga